waajalikoo nag dëkk ba taaluutu taaluut jël junuudi jiite soldaar fa qaala mu ne leen inna allaha yàlla mubtaliikum mi ngi leen di natt ci kanam tuuti bi naharin ci dex waaw fii ak fii ak bu ñu àggee daal bari ñi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn dex mubtaliikum bi naharin bu ñu àggee bari bari ñi am na fa genn dex fa man shariba minhu ku ca naan fa laysa minni bokkutoo ci soldaar si da ngay dëpp wa man lam yat'amhu ku ko misut ku ko musut fa innahu minni ci man la bokk maak moom ñooy ànd xeer bi illa lu dut man ixtarafa ku as xurfatan benn as bi yadihi ci loxoom kooka moom baal nañ ko day dem ah gaa yi ñëw agsi ci dex gi mu ne leen waalaat dex gi laa waxoon kon nag na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggi ndànk bu kenn naan wala koo xam ne kii maru jàpp ndax Dakar daa sori nga as sa benn loxo rek guux ñu jàll nga tooyal sa xol noonu lañ def déedéet fa sharibu ñu naan ba mandi minhu ca dex ga illa qalilan minhum deux millions yëpp tey ñoo naan deux millions yëpp tey ñoo naan la ilaha illallah moo tax yàlla saa bu tëralee ak jaamu rek fi lay segge gaa yi deux millions naan mu dese benn million ndeysaan acca deux millions yi dëppaat fekk si cinq yére muy sept muy sept falamma jaawasahu ba mu jéggee dex ga huwa moom wallazina amanu ak ña gëm ña naanut ak ña as maahu ànd ak moom allazina amanu fii mooy ñi nga xam ne as nañ jàll nañ ñi musut jàll nañ waaye bàyyi xel ñi mos ba ñu ne tëll seen jaaluut ak soldat si coow li na kur xaalu ña mosoon ne waaw laa taaxata lana amuñu pexe al yawma tey daal di décollé parce que mosoon nañ bi jaaloo taw junoo ji wallaay ndeysaan léegi cinq cent cinq cent mille rek ñoo ñoo ne dégg décollé wuñu ñaata million léegi sept million cinq cent génn nañ te cinq cent yi moom sax ñu ngi ci biir xeex bi waaye waaw maanaam un million bi cinq cent yi ñu ngi ci biir xeex bi yeneen cinq cent yi ñoo dëgër moo tax cinq cent yi ñoo déconné cinq cent yi dëgër cinq cent yi déconné nag ñoo ne laa taaxata lanaa al yawma bi jaaluuta wa junuudihi tey daal mënuñu Goliyaat daal ak soldaaram fii wallaay ndeysaan xaala wax allazina ña nga xam ne yazunnuuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaaqullahi daañu dajeg yàlla ñoom yaakaar daañu dajeg yàlla fa xeex ba tàmbali ba fii mosuñu de ko ne mbooloo tut nag nañ waaye mbooloo tut suus te ñor yàllaa ko soxla parce que léegi ñoom ñor nañ gis nañ ñu naafixiyoon génne ba léegi seen jom téye leen moo tax ku mës a bëgg a dal ci xare géwél day taxaw ci sa ginnaaw joxañ la baaraam wax lay baat nga ne tëj waaw ku mës a dal ci xare rek amoo géwél ndeysaan wallaay ndeysaan ñun ñun Samba Seck moo ñu daan wax loolu ku mën a way kooku ci rajo bi wallaay ndeysaan bu ñëwoon fii wax ma ko rek ngeen gis ma suñu réew mi mu jox ko def affaire ceddo tabarakalla ñooñu ne kam min fi atin ñaata la mbooloo mu tuuti mbooloo xalilatin mu tuuti xalabat gañe ba dàq fi atan mbooloo moo xam ne kasiratan mu bari la bi isnillah ci coobar yàlla waaw ñu ne nan dem mbooloo mu tuuti yàgg naa duma mbooloo mu bari bi isnillah waaw badar fe badar feeñal na ko trois cent treize dàq junni ak lu topp mu lay desal mbooloo su tuuti dàq mbooloo mu bari bi isnillah wallahu te na ngeen xam ne yàlla maa saabir na mi nga ànd ak muñ kat yi kon nañ muñ ndeysaan gaa yi daal di muñ fa lamma barazu ba ñu jàkkaarloo li jaaluuta ci jaaluut muy Goliath wa junuudihi ak mbooloom ma ñu daal di taalal seen ñaar loxo ñoom ñëpp xaaloo ñu daan ne rabbana yow suñu borom afriq alayna yal na nga tuur ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tuur ndoxu muñ lu jaas yi métti métti yàlla bu kenn dellu ginnaaw wa sabbit aqdaamana yàlla yàlla na nga dëgëral suñu taxawaay ba bu kenn dellu ginnaaw wansurna yàlla yàlla na ñu dimbale alal qawmi ci kaw nit ñi alkaafir na ñii nekk yëfal malaaka yi ne amin fa hazamohum ñu dàq leen bi isnillahi wallaay fa hazamohum ñu dàq leen bi isnillahi ko xoolal cinq cent mille ñoo dàq xoolal bu huit millions yëpp ñëwoon kon xanaa ñoom bu ku nekk ñëwee jàpp kenn rek ñëpp dee. waaw lay lay sax suñu borom kon tabaraka wa taala jàngal na fii dars bu am solo ci yonent bi ak gaayam yi moo di bu genn farata ñëwagul jàmbaari dañ naan kor bu farata ñëwee nag nga xam yaafu si wallaay wa qatala daawudu daawuda rey jaaluuta jaaluut gis nga fi ne yàlla baatu daawud la jëfandikoo te ñëwut dafa yebal jaaluut moo di kilifa ndekete lu xew ci njabootam moo ko def daawud ñëwul de waaye dégg nga waqatala daawudu jaaluut daawudaa ko rey lu jar a bàyyi xel la loolooy tax léeg-léeg yàlla wax ku dëng maa ko dëngal nga dégg ci yow ne yàlla moo wañ loxoom bind ko ci ndëng daa war a dëng ba dem sawara non fi ne su ma amoon quinze millions ba tabax fi kër dañuy wax ne oustaz tabax na kër te móolu ma dajalew may birig damaa tabaxlu waaw terme boobu lay waxe moo di kon lépp lu xew ci njabootu nit rek kooka ko def moom lañ koy wéer lu jar a bàyyi xel wa ataahu llahu yàlla jox ko al mulka nguur wala xikmata ak fiq wa allamahu mu xamal ko leneen mimma yashaaw ca la ko neex yàlla xamal ko leneen gannaaw yàlla yow yaa moom jaam yi moom Dawid ak Goliath lu tax nga bàyyi ñuy xeex yàlla mu ne xeex daa baax cim réew waaw mu ne xeex daa baax de walaw laa dafau llahi walaw laa dafau llahi bu yàlla doonutoon di jëñ annaasa nit ñi baadahum ca ñu am doole bi baadin ci ñi néew doole la fasadatil ardu kon suuf yàqu mu mu ne bis bu ngeen toogee ba kenn ëpp fi doole kenn mënta la ci kawam rek suuf yàqu waaw waaw bu ngeen toogee ba kenn toog fi te kenn ëpp ko doole ci yéen rek suuf yàqu fokk daa war ku fi nekk rek am ku ko ëpp doole bu waxee ngeen ne bëj ba nii walaw laa dafau llahi nnaasa baadum bi baadin la fasada al ardu kon suuf yàqu moo tax ñu fi xeex kenn yebu leen ñu dul xeex kenn respecté wu leen yàlla ko wax walaw laa dafau llahi nnaasa baadahum bi baadin la fasadat al ardu kon suuf yàqu parce que jenn waay moo fi nekk rek nekk gendarme adduna si yëpp international ku wax mu ne waaw wallahi ndeysaan walakin allah waaye yàlla zu fadlin boroom ak mbaax la lil aalamin ci mbindeef yépp tilka yii muy wax nag ayatullahi mooy wane mandarga mi lay xamal ne yàlla kenn la nag luuha alayka dañ koy jàng ci yow bil xaq ci fulla wa innaka te waat naa ne yow la min al mursalina yaa ngi bokk ci yonent yi ndax daa am ñu naan yonent Muhammad dub yonent yonent yaa ngi yem ci Isa mu ne ko wa innaka la min al mursalina waaleykum salaam wa rahmatullah tilka rusulu loolu bopp isib la tilka rusulu yonent yooyu yi yàlla am yu tedd yi faddal naa sànn nañu may leen góor gi mu wéeru ñu baadahum lenn ci ñoom ala baadin ci lenn yonent yi faddal naa baadahum ala baad gënante nañu tuuti yëmuñu waaw yonent yi yëmuñu dañoo gënante nit ñi it kon dañ ci jàngee ne yëmuñu dañoo gënante léeg-léeg nga dégg ñun ñëpp a yem loolu wax ju yàqu la waaw loolu wax ju yàqu la nit ñëpp yemuñ sëriñ si yëpp yemuñ taaliba yëpp yemuñ yonent yëpp yemuñ soxna yëpp yemuñ ah jëkkër yëpp yemuñ yàlla daf ñoo jëlale ñun dem ca yonent ya tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ci ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax na ak moom dama ne mu ne ha koo koo gën kenn wallaay li mu am kenn amu ko dama ne mu ne ha loo yor mu ne aw yat laa yor dama ciy bàcc déem di ci aj ajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni ni Muusa sañ a wax ak yàlla kenn suñu ko wax ak yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ne yàlla yow doxaloo démocratie yàlla ne ko a baax léeg-léeg mu ne ko da nga maa añaan yàlla ne ko a baax na lépp alxuraan la keroog ba mu ne ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayk feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraani doo ma gis ci àdduna doo ma fi gis de mu ne waaw comme doxalu démocratie mën naa la ñàkk gis mu ne ko walakin unzur ilal jabali li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gisee maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolal doj bi ma wax ko ne ko maa ngi ñëw ba yàlla feeñal doj rek doju ma kurumba Moussa xam ba mu xamul li ko ne ko waa baax na merci wallahi ndeysaan minhum man kallama Allah kon cër bi Moussa am ba nekk kalimullah ku dul moom amuloo ko wa rafaa yàlla yëkkati baadahum la nit ñoom darajaat ay daraja tànn leen ñoom ñu nekk ulul azmi ah Ibrahima ca la bokk Noox ca la bokk du dëgg Muhammad alayhi salaatu wasalaam ak Isa tabarkalla ak Moussa mi ñu wes ulul azm ba tey suma borom mi ngi lay wan ni yonent yi rawante waatayna Isa te jox nañu Isa ibn Maryam al bayinat moom it dara nañ ko loxo mooy jox nañ ko injil benn wa ayyadnaahu ñu dooleel ko bi ruuhil qudus ca xel mu sell ma Jibril waaw Jibril mu ne kon yonent yi gënante nañu wallaay te nga dégg ñu naan ngën ji mbindeef ngën ji yonent sallallahu alayhi wa sallam moom it yàlla du wax fii suñu waxee lii du fi feeñal cëram feneen la koy feeñal ndax bu ko feeñalee fii tiitar lay doon te daf koo teeloon wax ne ko ee inna al insana la yatqa an raahu staxna waaw nit bu teelee xam lim am day tiitaru wallaay moo tax du ko wax fii waaye li mu yónni woon Moussa yónni ko Isa yónni ko Shuaib yónni ko Lot yonent yëpp lim leen yónni woon la boole jamono yàqoon na yonent seen jamono daan yàqoo lépp ñu boole ko teg ko ci loxoom mu réglé ko ci vingt trois vingt trois ans sallallahu alayhi wa sallam kon muy ngeen di mindeef te it ba ba malaaka yi ñëwee ne ko dañuy tukkal àdduna mu ne ëpp naa def allahumma yaxfir li qawmi fa innahum laa yaalamuun bàyyil rek bàyyi ma ba ci kanam ba xam wallahi ndeysaan yal na yàlla julli ci moom ay yoon yoon walaw shaa allahu bu neexoon yàlla maqatata la du xeex allazina min baadihim ñi gin ñi ñëw ginnaaw yonent yi yàlla mu ne su ma neexoon kenn du fi xeex min baadi ma jaatuhum ginnaaw ba mu leen dikkalee albayinaat yu leer yi walakin waaye ixtalafu dañoo wuute ndonga yaa wuute fa minhum am na ca ndonga ya man aamana ko gëm wa minhum am na ci ñoom man kafara ko weddi ñaar ñu ndongal nag ndonga yonent yi yàlla nee na foofu la coow li nekk waaye du ci yonent yi noonu nga yonent yi amuñu problème ba tey fi nekk nii sëriñ si duñu am problème taalibe yi am problème wallaay sëriñ si duñu am benn problème waaye taalibe yi ñoo ñol ñol ndax bu sëriñ si nekkee benn affaire taalibe yi day xaw a wàññi ko te bu sëriñ si doon tënk tëj yi taalibe yi dañu am xaalis moo tax ñu leen tëj ay affaire la yoo xam ne yu am solo la ci ci wala shaa allah bu neexoon yàlla maqtatalu duñu xeex walakin allah waaye yàlla yafaalu day def maa yuridu lépp lu mu bëgg a def yaa yoo lazina amanu ñu ngi ñëw nag ci tàmbalee bëgg a jeexal saar bi bëgg a jeexal nag da koy waajal lu yàgg léegi day tàmbali rek ñëw ci wàllu économique tàmbali woon na doon la firil fatiha fatiha nekk ñetti xaaj tawhid ak sharia ak social mbirum liy doxal société bi nag comme fatiha loolu la jeexale woon ihdina siraatal mustaqim ba ca jeexlu ba léegi nag moom tam day tàmbali indi wàllu liy doxal société bi lii tax ànd bi baax te la ci gën a rëy mooy alal ji di joxlante suñu diggante wallaay moo tax nga ne woon ihdina sirat al mustaqim mun na ban sirat alladina an'amta alayhim ñu nga xéewal ba seen xam-xam ñu koy jëfandikoo gayri maxdubi alayhim yàlla boobu yàlla boobu boole ci ñu mere nga xam ne dañoo am xam-xam te nanguñ ko jëfandikoo wala doolin yàlla ba moo boole ci ñi sànku ndax ñoom amuñu xam-xam loolu lay tàmbali fii yaa ngi fi naa amoon yéen ñi gëm nag léegi waaw xasal naa leen tubaab yi ba ñu sonn mu indi leen fiq léegi nag xanaa war ngeen a gëm yaa ngi fi naa amoon anfiqu joxe leen mimma razaqnaakum ci lenn ci liñ leen wërsëgale min qabli an yaatiya balaa muy ñëw balaa muy ñëw yawmun bés boo xam ne bu ñëwee. laa bay'un fiihi jënd ak njaay amu fa ah laa bay'un fiihi jaay amu fa waaw bés ba bu ñëwee jaayum biir yi pour aljanna biir yi day jeex laa bay'un waaw gisee fermé laa bay'un fii wala xullatun xaritoo amu fa gis boobu fekk benn waaye nga bëgg koo takk xarit ndax daa am dara wala xullatu wala shafaatun intervention amu fa ceetiti wal kaafiruuna ña tooñoon yàlla daal tey jii humul zaalimoon ñooy tooñkat yi rek waaw ña weddi woon yàlla ñooy tooñkat yi rek wasalaam wax ju gàtt gi nii te gudd lool te yaatu wallaay gësam yàlla ñu yàlla dimbale acca allahu yàlla nga jàpp nag baatu shafaatu ramm léegi foog mu firi la ko alxuraan nu ñëw di firi moroom ayatul kursi yoo ngi nii yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam alquran jépp moo ci gën ayatul kursi dikk na ci hadis mu ne ci biir ayatul kursi dafa def ismullahil azam nee na saa boo ko ci ñaanee ñetti yoon rek yàlla nangu la lan ko ñaan wala boog ñetti yoon it ñëw na ko ci biir alquran ismullahil azam ñëw na ci baqara al imran taha ismullahil azam loolu hadis la mu ne ci baqara mooy allahu la ilaha illa huwa alxayul qayum ci ali imran allahu la ilaha illa huwa alxayul qayum ci taha wa anat alwujuhu lilxayil qayum ibnu kasir mu ne tabarkalla fukki phrase ak juróom la affaire boobu ëmb ayatul kursi yu hadis nee na boo dee def saa boo sëlmalee julli jàng ko booy dee rek ñu dugg aljanna waaw yàlla ñu ci yàlla boole ñun buñ daan dox guddi bañ daan yalwaan yi moom la ñuy jàngaloo boo génnee kër gi rek jàng ayatul kursi boo noppee daan ne salaamun ala nuhin fil alamina inna kazalika najzil muhsinin roof sa baaraam ci sa loxo sa tànk ci suuf su loxo suuf si daal di koy tibb def sa poche waaw da nga dem ba ñëw te doo jommi insha allah ndongo daara wallaay ni sax ginnaaw bu njàng ajal kursi moo tax keroog ba ñu ma saraxee tibb muy daw ca bool ba te mënuma koo lekk doy na waar lool wallaay ndeysaan laar bi laaraan ñu jox ma tibu cere di def nii ci sama biir bool bi ma koy def nii mu muy glissé di ma fente ndeysaan tabarkalla ayatul kursi doy na waar lool yàlla ñu ko yàlla jéggaloo programme la nag wallaay ayatul kursi allahu yàlla laa ilaha illa huwa benn yàlla amul ku dul kooku boo ko xamul alxayu moom rek mooy dund lu dul moom dañ laa mosal dund leen nangu ko yow xayun ngay doon moom nag al xayu dund gi amul fu mu tàmbalee amul fu mu yemi alxayumu moom rek a taxaw lu dul moom da nga mas a jiddaan kon lu fi taxaw ne xayum ngay mën a nekk waaye ne ko alxayumu moo tax kuy wéeru day seeti ginnaaw ak borom dayo ya suñ baax ko daan wax kuy wéeru da nga dem ci yàlla wéeru ci ginnaaw moom du daanu doo daanu waaye boo wéeru ci luy daan bu daanoo sa ndong tax suuf yàlla laa taaxusuhu du ko jàpp sinatun gëmmentu wala namun waxuma laa nelaw xam nga du wax du nelaw waxuma laa di gëmmentu déedéet day wax du gëmmentu waxuma laa di nelaw waaw yàlla bu ne woon nii benn bis da jënd xam nga yow boo yor sa kuréel boo ne nii rek mu wadd waaw oustaz da daana ci yàq ji di fiirum yàgg rek mu ne daj rek téere ba ni gars yi far ko nag oustaz wallahi ndeysaan waaye fi de boo dajjantoo rek li nga yor wadd lu mu tuuti tuuti nag yàlla fi ne bu ne woon daj rek àdduna tukki billahi soo demee kër ga lii ma la bëgg wax def ko da ngay wut benn pot nga bënn fii bënn fii def ci ndox takk ci buum fii fii ak fii ñaab ci buum gi di wëndeel ndox mi di tuuru waaye boo defee nii ñu fil fii sa loxo ñàkk nga ndox lu mu tuuti tuuti nag ba tax vitesse bi adduna yi dawee démb ak tey gis ngeen ngelaw ni mel démb bokk tey mu taw parce que daa am biddiw bu ne faaf jege sa suuf bu gën a jege suuf léegi tey ba moytul ñu togg seen i ceeb waxuma laa bu yàlla bàyyi woon ñett ak ñeent ñu ñëw fu njëm allahu akbar yàlla laa taaxusu sinatun wala naw yàlla lahu moo moom maa fi samawaati lépp li fi asama wa maa fi l ardi li ci suufin moo ko moom moo moom li ci asamaan moo moom li ci suuf moo leen di sàmmit man zal lazi ana kan mooy ki nga xam ne yashfau dana def intervention bu yowmal xiyaame indahu fa moom illa bi isnihi lu dul ci coobareem ku ngeen yaakaar ne sañ na yowmal xiyaam mu jóg amul ndigal amul lenn ne yàlla yàlla ne waaw mu ne kii aljanna ak kii ak kii yàlla mu ne laaj naa leen kan du am illa bi isni dina joxe nag ndigal isni yi dina koy joxe waaye képp ku dem yowmal xiyaam te say not mutul vingt sur vingt du la ko jox moom kay da ngay jàmbaare ba am vingt sur vingt mu door la ko jox ah néew na nga dem ci école fekk élève bu joxe prix inspecteur yeeg gouverneur yeeg ñooñu ñoo joxe prix parce que jaar nañ fi waaye élève bu jox prix morom bi moo tax yomal xëyam ñun ñu am treize ak ay sept ak huit ak yooyu kenn du fi ramu kenn ñu am vingt sur vingt rek xaw ma nag ñaanal balaa ñuy ramu kenn nit da nga am dix virgule cinq waaw dix virgule cinq ñun la dese moom bu amee ñu am vingt sur vingt ñu boole la ak kenn mu ñëw jàpp sa loxo dugal la aljanna waaye ay on ay ay sept ak huit ak ah six ak trois ak kooku moom yàlla ngay wax ca saar ba fa ma tanfaahum shafaatu shafiin kenn mu leen ram te kenn du leen ram maa la ko waxee ma tax ko yëpp ñu góorgóorlu def ci kes gi waaw ma mel ko yëpp ñu góorgóorlu de wallahi ndeysaan boo demee nag seet ba xam bu la joxee sa fiis da nga am même déet fa ama man uti kitaaboo bi yamin yi moo fay am waa man uti kitaaboo war a azar yi mu jax tak yàlla yaalamu moom rek a xam ma bayna aydihim la ca seen kanam wa ma xalfahum ak la ca seen ginnaaw mboolem ñi nekk adduna ku ne ci ñun yàlla xam na la ci sa kanam xam na la ci sa ginnaaw waaye ñun nag réer nañ li suñ kanam ah li si ginnaaw léeg-léeg ñu am luñ ci xam histoire nettali ñu ko bu sore ñu fàtte ko waaye li ci kanam suba képp wala tey ci ngoon xamuñu ko ump la ñu def wallaay ndeysaan wala yuxituuna kenn munta peeg nag ba xam lépp bi shay in ci dara dara min ilmihi ci xam-xamam yàlla illa bi ma sha lu dul ca la ko neex lu waaye xam ci xam-xamu yàlla moo la ko ca mosal wasi ak gën naa yaatu kursiyuhu seesam bi asamawaati juróom-ñaari asamaan wala arda ak juróom-ñaari suuf hee seesu yàlla bi moo gën a yaatu juróom-ñaari asamaan gën a yaatu juróom-ñaari suuf te ñu ne la ma ngi ko teg asamaan hee te loolu naqaree dégg moo tax ulama yi buñ jógee ci ci ci yëf yi ñu ne bu leen ko tawil bu leen ko jéem a firi bàyyi leen ko noonu te jàll waaw waaw waa ji daa ñëw ne imam malik eh yàlla nu mu toogee fekk muy firi ba ne yàlla nga toog asa ca asamaan mu ne ko yàlla nu mu toogee mu ne ko ah toog dañu ñëpp ko xam mu ne ko waaw mu ne nam toogee rek kenn xamu ko mu ne ko waaw mu ne ko salaat bi nag laaju bi daa la aj doo ngay jóg daal di jàpp waa ji ne ko aci waay